Heavyweights.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 hôpital saytu jàngorom ba gis ko sakk ci safara mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sakk ci safara waaye nag jàngoroy réew mi moom kenn saytu ko ba ci sàkk safara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw la wax tali yaa ngi jeexal nit ñi de réew mi nag léegi li fi l'accident yi di rey jéggi na dayo la xew ca mbir kilante route nationale 1 bi metti na te ab l'accident bu metti moo fa am baam ñu ci jaaree ñàkk seen bakkan ab oto sept place bu jóge woon Tambacounda moo fa daje ak camion citerne malien bilan bi nag metti na diis na ndax ñaari nit ñàkk nañ ki seen bakkan juróomi nit am ci ay blessé yu grave hmm, ma ne camion yi li ñuy def ci réew mi ëpp na l'accident bi nag metti bi mu metti tax na ba sapeur pompier yi ay waxtu yu bari la ñu def ngir génne néew yi ci biir oto bi hmm, yi néew ñu ci ñàkk seen bakkan ak blessé yi nag ñoom ñëpp yóbbu nañ leen ci hôpital régional bu Kaffrine chauffeur bi doon dawal oto camion bi nag fi mu ne gendarmerie teg na ko loxo ngir caytu xool xam lan moo waral boobu l'accident ma ne mat xool nag ndax lii xew ci tali bi ëpp na moo tax mane ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax ba tey ma des ca Kaffrine gannaaw la xewoon ca Pancang 3 nekk ca commune bu Medinatu Salaam le 2 bi weesu amoon waaju jàppoon jabaram dóor ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ba noppi simile na daa leneen lu doyati waar xew na ca Kaffrine ca Kasas di ab localité bu nekk ca commune bu kaay fukki kilomètre ak juróom-ñaar tàqale ko commune bu Kaffrine ma ne la fa xew romb na doy waar de moom daal ab mariage fa xewoon waaye mariage bi ci musiba mu jeeteeri kay ndax ñaari xarita ñëwoon assisté mariage bi xewoon ci guddi jeudi jëm aljuma ci noonu nag SD di ñaari xarit ñu ñëwoon teewee ci mariage bi dal di fay jotee gannaaw si nag ñu weccoo ay baat ba mujj jàppante ndax nee nañu ñoom ñaar ñëpp bi ñuy ñëw ku ci nekk dafa joloon jaasi braaye ko ci biir mbubam ma ne ñii nag am na lu ñu naroon moo tax biraag bi takkar naa see ci la SD dal di jaasi daa di koy dóor as gaañ ko gaañ gu metti atteindre ko ci tempan bi ak ci tànk yi <laughs> waay waay cëy mim réew ndeysaan AS bi ñu ko yóbbu hôpital bu Kaffrine juma ci fajar ci ay booru 6 heures du la ñàkk bakkanam ay way ay way sd mi def ñaaw tef bi nag gendarmerie mujj na koo teg loxo population kasas bi daal di yeewoo métti teg tiis gone yi nag nee nañu guddi googu dañ doon jëfandikoo ay ñol ma kay noonu la mën a deme moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Zedo na war ab fam bu yoo ci turu di ab étranger lañu fa agressé bëccëgu ndara kàmm ci ab karab rapide ooy way ooy way ndaw si dafa dugg ci ab car rapide agresseur bi di woo ci turu akan dal di ko fay fekk génnee paaka menacé ko <laughs> waaye xanaa ay góor dañoo nekkul woon ci car rapide bi naka noonu ci ndaw si dal di opposé imposé agresseur bi résistance waa ji mujj bojji paaka dal di ko koy jam blessé ko <laughs> waay waay xanaa ay góor nekkuñu woon ci oto bi ma ne li ko mujj daal mujjul neex de ndax justice populaire mu girdal ci kawam ndax bi mu jamee ndaw si ba ndaw si blessé fuul bi dañoo fax wut si ko dal di koy képp door ko door yu mit noppi jël ko yóbbu ko police bu jëppal waaw góore waay Sénégal nag léegi insécurité totale moo fi am ndax defkatu ñaawteef yi dañuy agressé guddi di agressé bëccëg hm, moo tax nit ñi léegi di fayul seen bopp moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax ay waay xale yi bàyyi leen photo yi taati neen yi ngeen di def di ko envoyé seen far yi ay waay ana kersa ma ne réew moo xam ne léegi yenn jigéen ñi summeeku ba ne dung vidéo seen bopp mbaa ñu photo seen bopp di ko envoyé seen far yi mooy seen métier ma leen moo taxit la dal waa kër ngoor rek leen di dal de ndax wolof njaaye wax ku dee ci marché yaa tagge sa bopp AW mi nag li mu def ëpp na ba jéggi dayoo ndax dafa summeeku ba ne dung dal di photo boppam envoyé ko ab faram bu nekk France ngir far bi envoyé ko iPhone 11 ak invitation ay waay xoolal ma yi bases ay waay ma ne far ba mu ngi wuyoo ci turu abari abari mu nag di faram ba nekk ca France mu jotee ci photo yi rek daf ko envoyé ak xaritam bu nekk senegal bu yoo ci turu Atal Atal moom it ba mu jotee ci photo yi li mu def mooy woo xale bi di ko santage ba mujj koo jox rendez foofa ca Wakaam xale bi nag bi mu ñëwee waa ji di ko santage ngir mu jox ko boppam AW dal di lank ba tëdd ci naaj bi <laughs> waaw góore way da ko yéex a def nag dal ut plainte convoqué leen ci yoon ba mujj leen teg loxo ma ne wax ji daal mooy bàyyi leen photo yi taatu ne ni ngeen di def di ko envoyé seen far yi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca lii sa caaro yi jéggi na dayoo ab élève daal la fa professeur am jàppoon ci wàllum tricherie élève ba dal di vengé wu dal di jël ab aiguillem def ko ci siège bi professeur bi war a toog ngir bu fo professeur bi tooge aiguille bi jam ko dil bi nag moom ak yeneen i élève ñoo ko defoon ndax dañoo bëggoon bu professeur bi toogee Abdoulaye Jam beneen élève bi caméra ko daal di koy dugal ci groupe whatsapp bu élèves yi xoolal ma lii rek ba élève bi defoon yëf yi conseil de discipline bi mujj nañ ko dàq génne ko école bi ñeneen ñi conseil de discipline bi teg leen ay daan waay waay xool leen ma lii rek àdduna boo xam ne léegi indiscipline total moom dañuy égi seen professeurs yi di mbéj seen président yi ay way moo taxit ay liberté ak nangam sangam ma ngoog nag xale yooyu ngeen yar mu doonoon seen xibaaru buzz yeneen xibaaru buzz Peace.